Bienvenue à la bijouterie Teranga Gold bijouterie Teranga Gold nekk fii ci Rufisque quartier Cioxor jàkkaarloo ak route nationale bi bijoux yu tendance bijoux yu moderne bijoux rafet boole qualité ak garantie képp ku ko bëgg fii ci bijouterie Teranga Gold nga ko mën a amee bijouterie Teranga Gold avec 16 ans d'expérience fukkeet ak juróom-benn ñu yëngu ci bijou di ci def yu yéeme Cheikh Fara Gueye borom Teranga Gold dafa xam bijou 1998 ba léegi mi ngi ci macha allah 2006 mu taxawal bijouterie Teranga Gold bijouterie Teranga Gold vous déroule le tapis rouge vous accueille dans ses locaux flambant neufs locaux yu bees tàq ay modèles bijoux yu doy waar ci fashion des bijoux haut de gamme ay bijoux yu amul fenn la ñuy importé or pur or bu dara raxul. or 18 carats Rayka Extra Neo Noro bijou massif ak filigram or 21 carats Bahreini ak India dañuy jaay ay bijoux pour jigéen di jaay ay bijoux pour góor ba ci xale yi à des prix défiant toute concurrence ay bijoux yu baax ci ay njëg yu xéewale seen bijouterie Teranga Gold modèle bu ngeen ñu indil ñu defara leen dina gaaw te dina rafet bijouterie Teranga Gold mi ngi Rufisque quartier Thioxo en face route nationale gaaw leen gaaw jël numéro téléphone bi ngir ay renseignements wala seeni commande seen bijouterie Teranga Gold 77 654 11 49 77 654 11 49 bijouterie Teranga Gold ku fi ñëw sa coono jeex